so len gisee ñu doon sakku suñu borom mu jàppale ñu waccel ñu taw gouvernement bi taxaw andi ay kay yu bes jox leen ni machine jox leen ni engrais def renouvellement du capital semencier ñu jëlé capital bi 6000 tonnes gerté gu ñu défar ba 55000 tonnes lolu mo waral ciowli ren yalla baxé Nous may ñu production exceptionnelle 1 million 411 tonnes d'arachide lolu nak dafa am yenen où yu mu laaj nekatul rek campagne 200 000 tonnes wala 300 000 tonnes d'arachide avons nañu campagne depuis le mois de décembre tay ji dernier recensement le 31 janvier nous avons 181 700 000 tonnes d'arachide déjà collectées waxtu wi 119 tonnes kon yokkute amna. gouvernement bi Sonacos Copéol West Africa Oil muy Kaid, Kaed Novasen ñom ñep tay duggu nañu ci campagne waxtu wi may wax a génn gouvernement bi bés bu nee dana génne diggante juróom-benn téeméeri million ba ci juróom-ñetti téeméeri million yoo xam ne moom moo koy dugal pour jënd gerte kon il faut ñu xam effort yi ñu def waaye xam nañ ne effort yooyu doyul moo tax ñu jël yeneen matukaay benn moo doon taxe bi nga xam dañ ko defoon pour exportation ci port bi suspendre nañ ko dindi nañ ko. pour que ñi bëgg a jël gerte gi yóbbu ko bitim réew ñu mën ko def waxtu wi may wax ak yéen trente neuf mille tonnes huit cent déjà dem na bitim réew waaye loolu doyul maa ngi waxtaan ak réewu Chine ak yeneen i réew pour que ñoom it ñu ñëw yokk dugal seen loxo ci campagne bi maa ngi wax gouvernement bi aussi ñu xool nu ñuy yokkee point de collecte yi. pour ñu mën a jàppale opérateurs yi waaye am na financement yu Sonacos am yu bees jóge banque islamique li may ñaan rek borom gerte gi mooy ñu bañ a yàkkamti lool campagne baa ngi dox te des na ay weer te acteurs yaa ngi ñëw leneen li nag mooy gouvernement bi war na xool ci naka lañu war a fexe ba diwlin ji ñuy jëfandikoo Sénégal mu nekk diwlin ju jóge ci gerte gi loolu am solo la parce que mënuñ def effort yi ñu def yëpp ci ay subvention ci machine ci tracteur ci ay maanaam u lu ne ñu def ko joxe jiw joxe engrais gerte gi ñëw ne gàññ ñuy bàyyi leen di jógee bitim réew di yàq loolu kon monsieur le premier ministre il faut également étudier toutes les dispositions à prendre dans les meilleurs délais pour que la Sonacos les huiliers puissent se mettre en production et que les Sénégalais consomment de préférence cette huile d'arachide produite localement et qui évidemment présente les meilleures garanties sanitaires et les meilleures garanties d'hygiène.